am na ñoo xam ne boo leen jant baa ngi ni sax ñu ne lii du jant weer la yaa donc ñooñu dañuy jafe xam nga mais chaque jour ñu ngi jéem a xool moyens yi nga xam ne moom lañ mën a def boo wax yàlla association bi am dara comme ni ko Babacar waxee léegi association bi fifteen yoru xoolee daaw am na benn koor boo xam ne euh, biñ koy yóbbu Sénégal dañoo ne ba maanaam li sénégalais joxe xam nga daaw wax dëgg yàlla bon am na fi loo xam ne xëy na mosu fi am maanaam dese yi bari woon na fi yàlla na fi gëj euh, amoon na lu ëpp dix dix corps yoo xam ne delloo nañ leen Sénégal loolu dafa xaw a métti aussi ci Sénégal yi nga xam ne ñoo joxe chaque fois seeni i trois cent trois cent yaa ngi dégg ba am na ci corps boo xam ne bi muy dem euh, li fi sénégalais jodoon dajale matul dañoo jëloon benn ay dollars yoo xam ne association bi daf ko gardé woon ñu wecceeku ko vide caisse association bi complété corps bi mu dem ba pare dese bor agence bi dañ ko yoraloon bor ñoo dem ba yoreel agence bi nga xam ne mooy rappelé du corps bi bor parce que ñun association ji boobu amatul woon dërëm bi ci def dañoo obligé après bi ay yenn sénégalais joxe joxe ci lañ dem fay fay fay bor bi ci agence bi ba tey yàlla def na aussi am nañ fi ñaari corps yoo xam ne ñu ngi fi di xaar te wax dëgg yàlla aussi ñu ngi profité ci occasion bi aussi di ñaax sénégalais di leen wax ne am nañ fi ñaari corps yoo xam ne ñu ngi fi euh, képp koo xam ne sénégalais nga nekk fii ci Argentine li ñu la sas rek mooy 500 pesos. boo mënee joxe lu ko ëpp baax na boo mënee joxe loo xam ne matul 500 it baax na maanaam dajale pour nga xam ne euh, koor yi bu seen papier yi pare du am problème mu xaalis. yaa ngi ci affaire financement boobu nga a wax sànq comme ni ko Babacar Brosé amul benn xaalis boo xam ne dañ koy jot ci nguuru Argentine wala ci nguuru Sénégal la preuve yaakaar naa ñëpp euh, teg nañ seen bët bi fi Macky Sall ñëwee nga xam ne mooy suñu président ñun ñëpp. bi mu ñëwee association bi mu recevoir association bi association bi yóbbaale daayira yi ak jigéen ñi euh, bi fi Macky Sall di joxe xaalis parce que yaakaar naa yéen waa DIV sax génn woon ngeen somme yi mu joxe woon ngeen wax ku nekk lim la jox mais amul benn yoon bu ngeen tudd ne association bi jox na ko ñaar dërëm donc te xëy na association mi ngi fi def liggéey boo xam ne xëy na laajoon na moom it ñu am soutien état bi mais ñaar dërëm joxuñ ñu ko. ndax moom ngeen àndal. non association bi association bi. c'est une association apolitique yaa ngi dégg man am naa fu ma far kii am na fu mu far xëy na sa bokkuñu fu ñu far yaa ngi dégg keneen am na fu mu far mais bu ñu ñëwee ci association bi sénégalais ñoo ñor c'est pas les politiciens yi nekk Sénégal wala déedéet sénégalais yi nekk fii Argentine ñoom ñoo ñu ñor yaa ngi dégg le reste ay affaire politique yi c'est pas notre problème teewul nag ku ci nekk bu la neex nga def say activité politique mais bu ñu ci association bi loolu dañ koy wax sax ci suñu WhatsApp groupe bi affaire politique ñu fee jóg. yaa ngi dégg fii association bi kenn du wax waxu waxu politique bu ñu demee taxaw ci Macky Sall dañuy taxaw ci devant Macky Sall comme le président des Sénégalais de tous les Sénégalais yaa ngi dégg du question xëy na euh, ñun dañoo far fenn wala non amuñu sax droit far fen fenn waaw amuñu droit far fen waa mais du tee le président bu fi ñëwee dañ koy wax suñu doléance wax ko li nga xam ne moom la Sénégalais yi soxla fii Argentine pas waa APR li ñu soxla wala waa réew mi li soxla déedéet li Sénégalais yi soxla. mi nga xam ne moo ñu soxal fii Sénégal fii Argentine donc association des ressortissants sénégalais dégg des fois nga dégg nag ay gars ci suuf di wax ay lii mais association bi farul fenn affaire politique suñu affaire waaw. jërëjëf Arfa dégg naa sànq ci say kàddu mu mel ni koor yi nga xam ne ñoo fi bàyyeekoo di dem Sénégal deux deux 2011 2012 am na yu ñu fi fekk yoo xam ne buñ defaree koor bi ba mu dem dañuy yëkkati li nga xam ne mooy njaal lu toll ci cinq mille wala lu ko ëpp. teg ci koor bi mu ànd ak moom dem Sénégal boobu ba léegi dañuy gis ne dañuy am sax jafe-jafe ngeen yóbbu koor maanaam loolu lan moo ko waral sénégalais yi ñoo joxetul wala yéen ci seen jëm bopp la sénégalais yi wóolootul pour jox leen ndax gis nañ ne bu njëkk moom la fi sénégalais yi gën a néew waaye booba la xaalis bi gën a bari léegi la fi sénégalais yi gën a bari te gis nañ ne léegi la joxe bi gën a néew ci yéen la wala ci sénégalais yi. waaw <coughs> euh, <coughs> du ma ne ci ñun la ci sénégalais la parce que ñun ñëpp ci sénégalais lañ bokk ci la maanaam ci man ci yow ci ñëpp yaa ngi maanaam xëy na am na loo xam ne euh, mooy sénégale sénégalais moo mel noonu maanaam lu bees lu bees ñëpp dañu ne bëri tiit yaa ngi maanaam bi mu fi njëkkee am décès je me rappelle décès bi mu njëkkee am bi ñu wootee jour boobu salle bi fees ba nit ñi xajuñ ci biir yaa ngi dégg parce que lu bees la woon c'était la première fois mu fi am. waaw ñun ñëpp affaire daf ñu yéemoon quoi xam nga soo ko nit ñi ñëw joxe jamono yi aussi liñ daan liñ daan fay bariwul. yaa ngi xëy na nag tey jamono mooy dox ba tey xëy na dëkk bi metti na yaa ngi dégg euh, daaw comme ni ma la ko waxee sànq am nañ fi lu ëpp 10 corps xam nga 10 ci benn année euh, dafa xaw a metti aussi ci sénégalais parce que sénégalais booy laaj chaque fois des fois ci mois bi sax. yàlla def xëy na wala chaque deux mois mu am ñaar wala kii nga laajaat ko laajaat ko xëy na day métti ci Sénégalais yi dëkk bi métti na tey fo toll na ci situation boo xam ni dafa xaw a métti ci Sénégalais yi loolu aussi ñun dañ koy comprendre yaa ngi dégg mais du xëy na question Sénégalais ñoo ñu parce que loolu du affaire association wala leneen déedéet du wàllu du wàllu ñàkk wóolu association wala leneen déedéet dimbali ki nga xam ne mënatul defal boppam dara la yaa ngi dégg loolu amul affaire association dañ koy génnee teg ko fële. ñu dimbali ki nga xam ni ay mbokkam mi Sénégal di xaar te moom mënul defal boppam dara donc ku ci nekk nga am loo ci am nga génnee jox ko joxe ko ci yaa ngi dégg même bu doon ñeneen ñoo ko yor sax ñun dañuy génne suñu li ñu war a génnee def ko ci duñ sax xool ay affaire association bi yooyu. ci mbiru association bi maanaam ci wàllu joxe bi ak dese yi nga xam ne si moom la euh, sëñ Assane wax mooy sénégalais yi ñoo joxewul parce que mënuñoo concevoir. ñu ni plus de 4000 sénégalais ñoo ngi fi ci dëkk bi te koor li ko yóbbu Sénégal lu dollar bi yokk yokk yokk yokk ba nëga ni àggagun ci 200000 peso donc bu sénégalais bu nekk joxe woon 200 pesos kese yaakaar naa ni euh, koor du fi am problème mais le problème a nekk ñi nga xamante ne si nii ñooy joxe ñooñu ñooy continuer di joxe ba nëgëni heure boo laajee dafa am ñu nekk ci dëkk bi ñoo xamante ne si ni boo leen laajee ci biir wàllu koor ku faatu bu dul seen mbokk duñ ci def seen dërëm wala boo leen laajee cinquante pesos lan lay jox donc ñiy laaj duñ ma bàyyi ma wax lu dul noonu tey jii nii bu nu nangu woon ñuy bind seen di leen wan liste bi ñi nga xam ne si li ñuy joxe ak la fay jóge di ngeen xam ne euh, lim bi joxe bariwul mais li nit ñi di dafa néew donc ci cadre boobu noonu wàllu leeral xaalis bi ngay wax dafa am loo xam ne si nii du ci mbedd ngay toog di ko leeral dafa am lu ñu tuddee assemblée général boo xam ne chaque vingt cinq décembre dañ koy def foofu noonu bépp sénégalais boo xam ne si yaa ngi ci dëkk bi bëgg xam mbiru association bi foofu noonu nga koy xamee mooy jour assemblée générale nga bàyyi sa yitte yëpp ngir ñëw teewlu parce que foofu la ñuy defee le bilan administratif ak le bilan financier ki nga xam ne mooy trésorier bi lépp loo xamante ne si dugg na fi si xaalis da koy bind lépp luñ ci dépensé da koy bind lépp lu des da koy bind su ko defee ñu xam ne association bi ñaata façon xaalis la yor. xaalisu dese yi xaalisu carte de membre yi ak xaalisu li nga xam ne si moo dem ci wàllu siège bi ak xaalis bi nga xam ne vraiment dañ ko doon recevoir ci ay quelques cotisations xaalis yooyu yëpp ñu ngi ko bind reçu yaa ngi fi facture yaa ngi fi bépp dépense bu ñu ko def ki nga xam moo yor wàllu trésorier yor na ko mais ne dafa fekk nag léeg-léeg nit ñi dañuy toog seen i kër di laaj question boo xamante ne si ni ci mbedd mi lañ koy laajee xëy na ñan koy laaj sax ñëw ci assemblée générale duñ ci am benn réponse mbir da ngay dem fan koy leerale nga dem toog nga taataan ñu leeral ko sa kanam man yaakaar naa ni problème boobu noonu foofu la nekkee mooy les sénégalais ñoom ñoo pareegul pour dem ci assemblée générale association bi donc ñoom ba nga ni bëgg nañu mais pareegunu pour jël seen temps jox ko association moo tax information yi bari ñoom ci mbedd mi la ñuy for rek ay dégg na ay yaakaar naa mais yaakaar naa bis bu ñu ñëwoon ci assemblée générale gis ne association bi jàpp naa ci dëkk bi. man ci sama xam-xam bu gàtt amul benn organisation bu ko gën a ci dëkk bi donc xaalis bu fu waaye joxe buñ ci jotee dinañ ni jot nañ ci trésorier bind na ko lépp luñ ci defit dinañ wax ni def nañ ko ci. waaw euh, Assane comme ni ko Babacar waxee yaakaar naa leer na ci côté boobu maanaam tey ñu toog fii Touba TV dina bon barki dem ba 1000 pesos dugg na ginnaaw suba génne nañ 2000 xam nga maanaam am na yoo xam ne dafa am fu ñu koy waxee. yaa ngi dégg amul kenn kuy ñëw assemblée générale yi fi mës a def yëpp laa la wax de assemblée générale yi fi mës a def yëpp te ñëwul ñu defal ko le bilan financier maanaam li jot a dugg ci association bi ak li jot a te ñiy wax ñëpp majorité bi ñuy wax ñëpp boo leen woowee assemblée générale duñ ñëw dañuy préférer dem defi leneen nit ki nag boo demul fi ñuy joxe information bi ba pare ngay jóg par exemple di wax loo xam ne yow maîtriser woo ko xam nga maanaam da ngay ay da ngay da di wax di wax lu neex rek. xam nga mais assemblée générale bu ñu wootee assemblée assemblée générale bi ñu war am nii assemblée générale ordinaire képp ku soxla information ci maanaam xaalis buy dugg ak xaalis buy génn ak yu demee noonu boo ñëwee ci assemblée générale bi di nga am information bi nga xam ne di ko mën a yobale yaa ngi dégg te ñun sax yemuñu ci loolu bu dee xaalisu dese yi bépp dërëm buy dugg yaakaar naa ñi déglu ñuy déglu whatsapp yi dinañ ko dinañ ko confirmer bépp dërëm bu dugg le trésorier day def du toogee ay fan. xaalis bi ñëw ci loxoom day ne ah diw sàngam joxe na lii diw sàngam joxe na lii diw sàngam indi na fi lii yaa ngi dégg donc yaakaar naa loolu dafa leer loolu amul lu gën a leer loolu bépp xaalis bu fi dugg pour affaire koor wala dara dañ koy wax ci whatsapp bi waaw mais nag le bilan financier de l'association ku ñëw assemblée général di ci am lépp lu leer waaw. bëggoon nañoo xam ba tey euh, deux ans yi nga xam ne toog nga ko li nga fi def ak lan moo taxit nga bëgg a laajaat beneen mandat. waaw euh, merci assan euh, yaakaar naa ne deux ans yi ñu fi def xëy na dañ koy brosse yaa ngi dégg du ñu dugg xëy na ci détails yi trop xëy na su boobaa dañuy jël temps bu bari mais nañ leen fi wax les point essentiels yi nga xam ne moom lañ fi moom lañ fi jot réaliser réalisation yoo xam ne jot nañ ko fee def euh, boo seetloo problème mu Sénégalais yi lu ci bari. fii problème Sénégal yi ci bëri à part loolu sax dama ko du ma ko ci wax maanaam koor yeeg yooyu yooyu xëy na dañ koy teg a côté xam nga bien que lu am solo la loo xam ni ñu ngi ciy taxaw ñun ak sénégalais parce que loolu du xëy na du association bi rek association bi la ak sénégalais yëpp ñun ñoo koy coordonné mais sénégalais yi ñoo ci def xaalis xam nga damay ñëw ci yeneen yi mooy maanaam ay problème boo xoolee ci mbirum passeport mbirum carte d'identité yi fi jot a jaar yooyu yëpp. association par exemple moo ci dox ba am ci ay résultats yoo xam ne ay résultats yu positif yaa ngi dégg euh, dinaa ñëw tuuti ci mbirum passeport yi ñëpp xam nañ ni problème administratif majeur bu sénégalais yi fii ci Argentine mooy problème passeport te boo xoolee ci biir mandat bi am nañ fi deux fois commission boo xam ne ñëw na fi pour defar defaral ni sénégalais ay passeport euh, boo xoolee en mille en deux mille dix def nañ fi 507 passeports c'est-à-dire avril 2017 dañ fi def 277 passeports euh, juillet deux juillet 2017 ñu def fi 230 passeports hmm. euh, boo xoolee aussi ci mbirum légalisation yi aussi dama ciy ñëw parce que aussi boobu point la bu am bu am importance parce que boo seetloo ñun ñu ngi dépendre ci euh, juridiction bu Nigéria. maanaam bépp kayit boo xam ne muy extrait muy casier judiciaire boo xam ne dafa jógee Sénégal rek normalement Nigéria lañ ko war a légaliser avant muy dugg si Argentine pour mu mën a valable jotoon fee waxtaan nag ak autorité argentine yi ñu ne ñu ah dinañ leen may ngeen di légaliser au Brésil parce que xam nañ ni jafe-jafe yi ñu may ñu ñuy légaliser Brésil ñuy légaliser Brésil ñu légaliser Brésil daaw ñu ne ñu léegi ah légalisation Brésil bi dañ koy arrêté dangeen di dellu fi ngeen xam ne moo leen correspondre muy Nigéria mais avant boobu yaakaar naa jot nañ fi légaliser Sénégal yu bari seen i documents ci at yi passé maanaam muy dem Brésil di ñëw ñu leen defal sauf-conduit muy dem di ñëw yaa ngi dégg léegi. ndax yéen a ngi ci doon gagné daal. non luñ ciy gagné maanaam dinaa benn affaire am nay jamono ñu doon laaj loolu sax da may may benn parenthèse mu dugg ci ñu doon laaj 1500 pesos. pour ñu légaliser la sa papier Brésil sa casier wala sa extrait maanaam boo joxee association 1500 pesos association bi dina la fayal sa légalisation bi jamonoy réal bi dafa doon nekk à peu près ay 1200 ba 1300 pesos boo ko boo ko boo ko calculer ci ci peso bi est-ce que yaa ngi dégg léegi li ci des noonu 200 pesos yi ci des. ñun bu ñu dajalee kayit ba mu mat yenn kayit ay 10 ay yu demee noonu dañ koy envoyé par DHL bu ñu ko envoyé DHL suñu ambassade ambassade bi légalisé ko ko ambassade Argentine mu légalisé ko ñu envoyé ñu ci 200 200 pesos yooyu di des noonu ci la ñuy fay envoi DHL yi aller yaa ngi dégg léegi képp koo xam ne par exemple ñu ne léegi képp ko xam ne élève nga maanaam pour pour ñaax nit ñi ñuy mën a jàng ak yooyu képp koo xam ne élève nga duñ la fayeeku légalisation bépp bépp papier boo xam ne dafa jëm ci yeneen. kii social yoo xam ne kii wala ay sauf-conduit social koo xam ne dafa war a ñibbi ak yu demee noonu duñ ko fayeeku léegi deux cent deux cent deux li li ci li ñuy jël ñun ñu couvrir loolu ñu fay loolu su ko defee dërëm du ci des su ko defee des fois day manqué mais bu manqué toujours ñun dañu am ay moyens pour couvrir ko est léegi dañuy dem ba des fois waa ji nga xam ne par exemple moo ñu moom la ñuy envoyé xaalis bi fële pour légaliser dañ koy dem dañ koy yoreel mais pourtant kenn du ñu dégg dañuy fexe ba lijjanti ko mais mu am ay temps ay sénégalais jóg jóg def benn campagne boole ñu boole ñu ba ci mati trois pommes sax ne ñun mille cinq sénégalais ñu ngi laaj euh, cent cinquante mille pesos cent cinquante mille CFA te jamono yi mille cinq cent pesos xam nga ñaata la woon ay quarante mille CFA xaw ma cinquante mille CFA ñu boole ñu ne ñu ngi laaj ay cent cinquante mille CFA di légaliser ay papier ay papier dugg na fii jaar na fi ba yàlla def Brésil boobu ñu dagg ko Argentine gouvernement Argentine dagg ko. bi mu ko daggee ay nit fay nañ fi 3000 pour yóbbu seen kayit Brésil tey boo bëggee yóbbu sa kayit Brésil ñaata ngay fay yaa ngi dégg parce que li ngay fay timbre déjà ay 60 dollars la entre 40 ba 60 dollars ñaata la tey ci peso nga bëgg ci boole sa transport DHL xam loolu yëpp par exemple di jéem a wut jaxase yi di jéem a jaxase xelu Sénégalais pour leen wax ne association bi day lekk xaalis ak demee noonu fekk yow des fois sax xëy na li ñu lay jox du mat donc loolu aussi euh, c'était bien que ñu leeral ko donc ci biir mandat bi aussi boo seetloo en 2017 134 extraits légalisé nañu ko fa au Brésil 134 extraits de naissance casier judiciaire yi 164 casier judiciaire autorisation parentale yi def nañ ci cinq attestado yi mu ñëwaat aussi ci attestado yi pour wala leen aussi travail bi am solo bi ñu ci def maanaam. ci ñi nga xam ne seen i passeport day jeex te amuñu passeport yu bees te commission ñëwagul maanaam ñun négocier nañ loolu aussi ba nga xam ni dañ lay defal benn attestado boo xam ne gouvernement argentine da koy accepté yaa loolu dañ ci waxtaan ak cancer ak ñëpp ba nga xam ne dañu ko may dañu ko accepté maanaam dañ defal benn attestado boo xam ne dañ ko daan yóbbu Brésil ñu légaliser ko bu ñee loolu mooy remplacer passeport bépp tramité boobu nga def fii ci dëkk bi ak attestado bi mën nga ko def ba tey mais tey affaire bi dafa changé lu tax ma ne dafa changé mooy Brésil comme Brésil légalisé tu ko ñun dañoo dem waxtaan ak Cancheria ba nga xam ne bu ñëwee fii dañ koy yóbbu Brésil suñu ambassade defar ko bu ñëwee fii ñu yóbbu ko Cancheria Cancheria légalisé ko ñu jox la sa kayit nga def tra bépp tramité boobu nga def te yoroo passeport mën nga ko def ci ci ci ci tramité laajal dëkk Afrique yi fii kan moo ko fi am kenn amu ko fi yaa ngi dégg képp ku ci soxla lu mel noonu da ngay dem ba sa ambassade wala nga demaat ba sa dëkk am sa passeport ñëw donc euh, ARSA mi ngi ci def ci côté yooyu travail bu am solo liggéey bu am solo saa ngi dégg euh, buñ ñu aussi sauf-conduit yi en 2017 defar nañ ci 63 sauf-conduit authentification yi def nañ ci 3 certificat de mariage yi am nañ ci 7 yaa ngi dégg muy 425 dossiers yoo xam ne suñu loxo la jaar suñu loxo la jaar ñu légaliser ko sénégal yi jox leen seen i papier cinq dossiers yoo xam ne en 2017 yoo xam ne jaar nañ suñu loxo ñu légaliser ko jox joxat ko Sénégalais yi te liñ leen ci laaj mooy li nga xam ne day yomb pour ñëpp yaa ngi amul dara loo xam ne day delluwaat ci association bi. donc bu doon xëy na comme ni ko nit ñi yaakaaree xëy na nit ñi dañ ci wut pour lekk ci xaalis affaire yooyu yaakaar naa 425 dossiers boo ci génnee lii ciy des yaakaar naa bu ñu ci doon lekk ñun ñëpp ku ci kenn du ci am njëgu gasewu sax yaa bu ñu ñëwee en 2018 2018 48 casiers defar nañ ko ci extrait yi cinquante parce que après ci la ñu dagg affaire bi suñu euh, euh, liaison ak Brésil donc attestat yi am nañ ci douze sauf-conduits 66 sauf-conduits def nañ defar nañ ko daaw transcription yi 14 pour wax leen ne transcription aussi loolu dama ci dellu si waat transcription mooy maanaam képp koo xam ne képp koo xam ne am nga fi doom xam nga ñu mën la defal. genre extrait de ci ambassade Sénégal bi nekk Brésil yooyu c'est gratuit yooyu bépp sénégalais bu fi ñëw dañu lay wax ne c'est gratuit ñu defal la ko te doo fay dara waaw donc euh, grosso loolu mooy réalisation ci matière ci ci sur le plan administratif yoo xam ne def nañ ko ci ak yeneen yoo xam ne jour assemblée générale incha allah ku fa ñëw aussi di nga dégg lépp loo xam ne réalisation yoo xam ne def nañ ko ci mandat bi xam ak li nga xam ne moom la ñu bëgg a def. demee 100 pour cent mhm. ci wàllum këyit ci taxawaay boo xam ni taxawee ngeen ko ci. Mhm. mais bu ñu seetloo tey 90 pour cent yi nga xam ne dañu nekk fii Argentine ñëpp ay commerçant lañu. mu njëkk ci condition bi ñu fi nekkoon mën naa ni baax na da ngay ñëw laal fu la neex mais gis nañu tey dafa difficile daanaka yi jàpp na ci dara nga def bilaa ci tuddoo ma kani ci yéen a ngi xalaat taxaw ci buskaaral leen condition boo xam ne dana gën a baax loolu it fu ngeen waaw loolu aussi euh, góor dinaa ci dellu si Euh, di la wax ne ñooñu sénégalais yi nekk fii nga xam ne par exemple xëy na comme ni nga ko waxee léegi question sax xëy na taxawuñ ci dara ñu ñu ngi jéem a xool yan mooy la ñuy def ba nga xam ne bépp sénégalais bu fi nekk nga nekk ci dara xamal nga nekk ci dara sax mais nga am document parce que loolu si essentiel yaa ngi dégg boo seetloo am na jamono yoo xam ne waxoon nañ fi sénégalais yi nañu préparer seen i papier parce que jamono yi ñu ngi doon négocier ak immigration ak les du pays pour que ñu mën a jox sénégalais yi kayit parce que dañoo seetloo ne am na sénégal yoo xam ne fii am nañ seen local di fay afib comme ni ko gars yi di waxee di fay te amuñu kayit am na xam ñu ngi liggéey en blanco mënuñu am kayit yaa ngi dégg yooyu yëpp ñu demoon waxtaan ceeg autorité yi boo wax dëgg yàlla ñu commencé woon ñu jox ay solution boo ñu amoon yaakaar ne wax dëgg yàlla dinañ ñu may ñooñu kayit dinañ may sénégal yëpp sax kayit moom nag ay problème yu fi mujj am après xeex beeg yooyu yoo xam ne xëy na ñun ñoo ci dugg ba yooyu yëpp pratiquement xaw a yàqu mais teewul ba léegi ñu ngi kon continuer di waxtaan ñu ngi continuer di waxtaan ñu ngi continuer di ñaan est-ce que yaa euh, ñi nga xam ne par exemple ñoo ne Flores ñoo ne ONCE ñoo ne Conscience ñi nga xam ne par exemple ñu ngi ci mbedd mi ak yooyu yëpp ñu ngi ut ay opportunités yoo xam ne par exemple pour permettre leen ñu mën a former wu yaakaar naa dëkk boo ci nekkee aussi di am possibilité formé wu euh, da nga war a formé wu signé nañ fi ay convention waxtaan nañ fi ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla pare nañ pour sénégalais bu ñu ñu mën leen former mais sénégalais ñoo nanguwul dem formé wu yaa ngi dégg nit ki nag boo nanguwul dem formé wu aussi day xaw a doy waar day xaw a doy waar wax dëgg yàlla pour nit ki aussi wutal la yenn solution yi parce que njaayu mbedd bi njaayu mbedd bi li xew nii ci mbedd mi ci cachet yi neexuñu ñun ñëpp amul kenn koo xam ne neex na la yaa ngi dégg mais il faut ñu comprendre aussi que loi la maanaam dëkk aussi boo fi nekkee démb ci loolu damay saluer sëñ Abib si mi fi woon démb ak euh, sëñ Cheikh Matiley wax nañ fa ay wax yu am solo yaa ngi dégg maanaam dëkk boo fa nekkee da ngay respecter seeni loi bien que mën nga négocier mën nga naxante ak ñoom bu munul ñàkk naxantel ak ñoom nga négocier mais nag loi loi la yaa ngi dégg loi loi la boo xam ne dañ ko voté voté ko assemblée national voté ko fépp ba ne si mbedd yi kenn mënatu fi jaay xam donc day xaw a jafe pour que nit ñi bëgg a ñëw ñu imposer pour ñun ñu jaay ci mbedd donc lenn lañ mën a def mooy naxante gaa yi jéem a waxtaan jéem a bañ a def violence parce que violence bi daf ñuy yàqal violence bi arrangé wul dara daf ñuy yàqal waaw donc euh, xaar ma jox Babacar mu am xëy na moom aussi lu mu ci apporté euh, ba ci kanam ñu ñëwaat. waaw ci cadre réalisation yi man je pense que ni bépp sénégalais bu nekk fii ci dëkk bi war nga rafetlu liggéey bi nga xamante ne si ni association bi ak ses maigres moyens mi ngi koy def fii ci wàllu sénégalais yi ndax jàpp naa ne li fi le président expliqué lépp ci wàllu bilan administratif amul lenn loo xamante ne si ni liggéeyu association la euh, tey jii ni bu ñu fi amoon consulat wala ñoom fi ambassade loolu ñoom seen liggéey lay doon mais comme yàlla dogal nañu ñun amuñu fi ambassade amuñu fi consulat association bi jël mbubbu consulat ak bu ambassade sol ko di liggéey liggéey boobu noonu euh, ci cadre li nga xam si ne mooy marchand ambulant yi euh, ñu ñëw ci tuuti parce que loi bi euh, terewuñu ambulant ci dëkk bi mais li ñuy tere mooy mantero donc dafa am benn ñaari baat yoo xam ne si nit ñi dañ koy jaawale xam nga ambulant ak mantero bokkuñu. parce que ambulant mooy ki nga xam ne si ne day wër di jaay mais mantero mooy ki nga xam ne nag dafa lal benn place donc ñoom loolu la ñuy la ñuy la ñuy tere ñoom parce que ñun ñëpp a ci yem parce que boo ñëwee ci réew nekk ci benn situation bu xaw a précaire euh, da ngay fa mu am benn passerelle loo xam ne da nga ciy jaar léegi nag euh, loolu noonu euh, même l'autorité argentine moom xam na ko accepté na ko mais xam nañ ni loi bi dafay tere. jaay mbedd maanaam lal ci mbedd ci voix publique foo xam ne si ay nit ñoo fa war a jaar ay piétons nga ñëw occuper voie publique bi lal fa ay 3 mètres ay 4 mètres yaakaar naa ne loolu même bépp sénégalais da nga ko war a ñaawlu euh, ci loolu noonu euh, je pense que ni ñun li ñuy li nga xam ne si man moom laay gën a ñaaxe sénégalais yi mooy bien vrai que nii dañuy liggéey di daan suñu doole ci wàllu njaay mi mais tamit ñu def ko avec intelligence. parce que dafa am loo xamante ne si nii yow ñun ñoo ciy loru ñun les sénégalais mooy autorité kenn du ko affronter te danoo gis ni euh, sénégalais yi dañuy euh, danoo dana violent maanaam dañuy xeex ak policiers yi donc ki nga xam ne si moo war a rester sécurité bu fekkente si da nga ñëw di xeex ak moom danga ci am li ñu tuddee causa parce que résistance à l'autorité moom lay doon te causa boobu noonu loi mooy dal sa kaw te bu dalee sa kaw loolu dafa daf lay topp. ba ci sa wàllu euh, nekkin ci dëkk bi sa intégration daf koy affecté su ko defee ci sa wàllu kayit yow yëpp dafay dem ba daanaka ay kawsala yoo xam daf lay topp ba keroog am na loo xam ne si boo ci duggee yenn démarche administrative yi mën na koo bloqué donc côté boobu man yaakaar naa ni dana war a gën a sensibiliser nit ñi xamal leen ni kat vraiment li nu nekk mooy 90 pour cent yi ay jaaykat lañu mais am na xam ne seen loi marque la dañuy tere exposé ci vie publique bi ay li nga xam ne si mooy marchandise boo xam ne contrefaçon la dañ koy tere. donc dafa am loo xam ne si kenn ko cautionné lépp loo xam ne dañ koy tere il faut que ñu jëm koo bàyyi wala boog ñu demee ko ak intelligence donc bañ dem ci place yi nga xam ne vraiment euh, dañ koy tere ñu di ko moytu parce que dëkk bi yaatu na il faut que sénégalais yi ñu varier li ñuy def képp ku am opportunité pour dugg ci leneen nga dugg ci leneen képp ku am opportunité euh, dem feneen nga jëm faa dem parce que ñëpp bu ñu bëggee concentré wu ci benn zone lu mel ni Flores wala Once euh, loolu chaque jour. dafay am benn genre blocage boo xam ne si ni euh, parce que mayuñu ko sax tubaab bi fi nekk wala ñu koy ba ñu koy may sénégalais kese am na loo xam ne moom yaakaar naa ne sénégalais yi foog xam ne association mënu ci dara association mënta organiser sénégalais yi ba tax ñuy jaay ci mbedd mi parce que loolu loi bi moo ko tere donc li nu man mooy jàppale sénégalais yi di leen sensibiliser di leen informer ci côté boobu noonu pour ñun ñëpp ñu am compréhension xam ne vraiment même bu ñuy jaayit ñu def ko avec intelligence fépp fu ñuy tere ñu bàyyi ko tey négocier avec autorité bi parce que mu ñu mën a yàqal moo ëpp foofu li nga xam ne moom a jariñ euh, waaw ci kaw bilan boobu aussi dafa dafa am lu ma ciy dolli mooy boo xoolee en deux mille dix huit fexe nañ ba suñu ambassade envoyé fi euh, fonctionnaire boo xam ne defal nañu sept cent quarante quatre consulaires donc yooyu rek mooy wane ni lu dialogue boo xam ne ni dañ ko maintenir ak toujours suñu autorité pour ñu yombalal sénégalais par exemple ci côté administratif bi li nga xam ne moom la ñuy soxla fii donc jot nañ fi defar 700 cartes cartes 700 cartes consulaires euh, mu amoon aussi benn événement boo xam ne mooy boo xoolee élection présidentielle yi passé mu doon loo xam ne bokkoon na ci ci suñu ñaxtu loo xam ne aussi depuis boobu ba léegi ñu ngi ko doon xeex mooy ñu boole sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ñi nga xam ne ñoom ñooy décider maanaam ku leen di jiite Sénégal ak ki leen dul jiite. ba wax dëgg yàlla ñu amoon ci satisfaction ñu boole woon Sénégal ñu boole woon Argentine ak euh, Brésil ci dëkk yi nga xam ne euh, dañ fay def ay élections présidentielles ba jotoon nañ fi def 1741 cartes d'identité ak carte d'électeur 1741 cartes donc moom lañ fi jotoon a def biñ fi ñëwee ñoom lañ fi bindoon bindoon nañ lu ëpp loolu mais loolu moo fi jot a si ba élection yi wax dëgg yàlla ñu def ko ci jàmm. def ko ci wax dëgg yàlla vraiment ci tranquillité ba jot nañ ay félicitations yu jógee ci état Sénégal man mi nga xam ne man la yàlla def ne man lañ fi nommé woon maa fi nekkoon maa fi représenté woon Sénat Moustapha moom la ñu désigné woon euh, mu coordonné élection yi yaa ngi dégg mu taxaw fi taxaw état wax dëgg yàlla ñu def liggéey boo xam ne coow amu fi def nañ ko parti politique aussi collaboré wax dëgg yàlla ñu amoon benn groupe whatsapp boo xam ne tous les représentants des partis la ñu ngi ci woon ñu waxtaan ak ñoom ba def élection yoo xam ne amul contestation amul dara ñu def ko ci paix wax dëgg yàlla ci jàmm euh, ñu jot ay félicitations des autorités sénégalaises donc loolu muy mérite sénégalais yi nekk Argentine yëpp ñëpp ñoo ko moom yaa ngi dégg maanaam def élection ci jàmm rek loolu déjà dara la donc loolu si ñu ngi ci félicité sénégalais yëpp ñi nga xam ne ñoo ñëwoon voté si ak ñi ñëwuloon voté vraiment ci yar beeg loolu yëpp ak organisation bi waaw muy lu am solo aussi ci ci bilan bi boo xoolee aussi ci mille 2019 pour le moment 2019 demagul fenn mais jot nañ fi am defar pour le moment ay 38 sauf-conduits maa ngi dégg sax ay rumeurs yi wax ne association bi nee na léegi yóbbatul ay sauf-conduits yi ñu ngi koy yóbbu maanaam li ñu yóbbootul actuellement mooy légalisation extrait yi ak casier judiciaire yi xam ne dañu ko doon def ci ambassade Sénégal bi nekk Brésil te loolu dinaa ci dellu si ci li nga xam ne moom lañ ciy dox pour le moment liñ ciy dox mooy euh, la dernière fois bi ma demee juste avant élection yi euh, yàlla dafa def ma demoon Brasilia toog ak madame l'ambassadeur ñu waxtaan ma posé ko le problème posé waat ko le problème sax parce que yàgg nañ leen ko posé euh, li mu def mooy ñoom dañoo jël contact ak suñu ambassade bi nekk Nigéria ñu paas ñuy contact yi ñun aussi ñu woote fa au Nigéria waxtaan ñoom waxtaan suñu ambassade bi foofu ba ñu ne ñu léegi amul problème ñoom dinañ leen mën a yónnee casier judiciaire ak sauf-conduit yi au niveau de l' ambassade ñoom ñu jël ko envoyé ko seen i homologue yi nekk ambassade Argentine ñu légaliser ko bu ñu paree ñoom ñu récupérer ko envoyé ñu ko comme ni ñu ko doon defee au niveau du Brésil ñu waxtaante ak wax dëgg yàlla ba ñu tëral affaire bi yëpp léegi ñu ngi ci dernier détail yi xam nga. mooy affaire u xaalis beeg yooyu ni ñuy def ba mu dem ak yu demee noonu loolu mooy dernier détail yoo xam ne bis bu ñu ko solutionné dinañu reprendre at légalisation casier yi ak extrait yi am nañu yaakaar ne ci ay semaines yu new xëy na bu ci yàlla àndee euh, dañuy ñaan rek bu ci yàlla àndee euh, loolu dina soti dina doon un pas très important parce que gis nañ ni sénégalais yu bari fii seen i casier seen extrait fu te toll nii dafa bloqué ñii ñu ngi dox nationalité ñii ñu ngi dox yeneen kayit yoo xam ne euh, loolu moo ko moo moo ko téye loolu wax dëgg yàlla moo ñu tere nelaw ñun aussi ñu ciy dox suba te bu soobee yàlla dina dina dina sotti incha allah ak yeneen réalisation yu bëri yoo xam ne association bi jot na ko fee def ci mandat bi di assister sénégalais aussi sur le problème de justice yooyu bëri na fi yooyu yaakaar naa chaque jour presque chaque semaine ñu dem ci ay audience ak yu demee noonu Babacar du ma bàyyi ma moom it chaque jour côté San Martin mu ngi fay dem di taxaw sénégalais yi ñun fii capital chaque jour ñu wooñu ñu dem donc euh, dëgg yàlla lépp loo xam ne mën nañ ko taxaw sénégalais rek ñu ngi koy taxaw sénégalais yi te am yaakaar ne aussi xëy na bu ñu continuer euh, dina jur njariñ ci Sénégalais yi ba loolu moo tax ñu yaakaar ñuy laaj deuxième mandat ci biir deuxième mandat o am nañu objectif bien déterminé mooy au moins Arsa euh, ak lu mu doon sax ñu am benn siège boo xam ni wax dëgg yàlla képp ku nekk ci dëkk bi di nga xam ni Arsa fii mooy seen siège sénégalais fii kat mooy seen siège yooyu ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla incha allah rabi euh, bu ci yàlla àndee dina mën a réaliser wu am nañ yeneen projet aussi yoo xam ne euh, ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey te bu soobee yàlla ci jour assemblée générale bi xëy na bu ñu dinañ mën a joxe yenn détails yëpp waaw. jërëjëf Arfan jeeju jërëjëf Babacar kàddu yi am na solo lool kon bu ko defee rek euh, ñu jox leen rek li nga xam ne mooy seen dernier tàggatoo lan ngeen di bàyyee sénégalais yi. waaw maa ngi leen di gërëm ci émission bi wax dëgg yàlla di rafetlu aussi question yi euh, suñu dernier moo li muy doon mooy di lancer un appel à tous les sénégalais yi nga xam ne ñoo ne fii Argentine di leen wax ne dëkk bi dañoo toll tey foo xam ne yaakaar naa euh, booloo moo gën xaajaloo képp koo xam ne wax dëgg yàlla am nga loo yéene sénégalais am nga loo bëgg a liggéeyal sénégalais yi yaakaar naa ku ci ku nekk li nga xam ne mën nga ko ak am nga yéene def ko aussi buñ ñëwee booloo ñun ñëpp. dinañ mën a def loo xam ne jariñu sénégalais lay doon donc euh, lépp loo xam ne lay xaajale sénégalais ñun duñ ci dox tey te duñ ci dox ëllëg incha allah li ñu bëgg mooy bépp sénégalais bu nekk fii Argentine wax yàlla nga nekk ci jàmm Argentine ni meloon démb noonu lañ bëgg mu kon ne di ko mel maanaam euh, képp ku nekk Argentine nekk sénégalais rek ñëpp xam ni sénégalais nga ñu bañ ne kii fii la far fii la far la far wala fii la far yaa ngi dégg ba bépp problème boo xam ne ñëw na ci kaw sénégalais rek te tey gis nañ ni problème yi bari na ci kaw sénégalais yi di ñaax sénégalais aussi ñu def attention ci dëkk bi parce que dëkk bi dafa changé dëkk bi ni mu meloon melatu ko tey gis nañ sénégalais yi dugg ci affaire portable yeeg ci affaire yoo xam ne wax dëgg yàlla dafa xaw doy war donc ñi ngi ñaan sénégalais yi ñu moytu ñu moytu te wax dëgg yàlla di daw yan yi te xam ni dëkk bi ni meloon ay 2000 nangam ak 2000 nangam melatu ko ren. ci at at at at at yi ñu nekk nii dëkk bi dafa changé beneen gouvernement ñëw indi seen beneen politique donc ñun sénégalais ñun ñoo war a moytu te wax dëgg yàlla xam ni liggéey moo ñu fi indi donc ku nekk ne def liggéey bi la fi indi nga moytu li nga xam ne loolu nga war a moytu jàmm ne ñooy donc ñuy gërëm ñëpp di remercier ñëpp euh, di leen baalu ak aussi ci temps bi leen baalu ak aussi ci yéex a dugg pour leeral yenn questions yi jërë ngeen jëf. waaw sama kàddu gu mujj xanaa di jaajëfal vraiment di remercier euh, Touba TV euh, canal bi ak euh, Big Deal ci initiative bi nga xam ne vraiment jël nañ ko di ñaax sénégalais yi rek kenn ku nekk vraiment ci wàllu wi nga féete nga wane sa bopp parce que jot na sénégalais yi ci dëkk bi tubaab bi xam ne vraiment macha allah am nañ ay potentialité am na nañu talent lu nekk vraiment mën nañ cee bay seen waar. donc di leen remercier ci occasion bi di remercier bépp sénégalais bu yeewoo fii ne euh, di leen xamal ne nag vraiment bu ñu fi waxee loo xam ne am na rëq-rëq ñoo ngi tuub di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi parce que defar rek ak leeral rek moo tax a jóg. di gën a ñaax nit ñi nag vraiment ci wàllu assemblée général bi nga xam ne ci leen jëm di woote ci ak dal ak tranquillité xam ne du dara xëccoowuñu xuloowuñu xeexuñu maanaam dañuy dem rek pour waxtaan dafa fekk ni lépp loo gis dafa am ñu war a nekk ca bopp ba. donc loolu la ñuy sàkku képp koo xam ne si ni am nga information wala am nga ay laaj yooyu laaj nga ñëw ci assemblée générale ba lépp lu lëntan sam bopp su ko defee boo fa ñëwee ñu leeralal la ko expliquer la ko su ko defee li nga xam ne si mooy ñaari liste yi ngeen xam ni vraiment moo fi nekk bien vrai que ni am na ñu fi nekk di def ay jéego pour ñu jéem a xool nan la ñuy bokkee ndey ak baay nekk benn mu bañ a am xëccoo bañ a am xuloo ba pare bañ a am ay élection bu ñu demee ba loolu mënta nekkit ñu def élection que le maire gagne ku vraiment ñeneen ñi ànd ak ñoom vraiment liggéey ngir lépp mën a jaar ci yoon vraiment man daal lépp laay loolu laay tëjee samay kàddu di ñaan ñëpp ànd ak dal euh, ànd ak jàmm